وعلى آله وصحابته الخر الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى الحقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وخلبي أرشدا وامه السخاوة nahatni alim wajal fuadiya madina taxalum mbokki daara ji asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw bu ñu leen nuyoo siyaar leen ndokkeel leen ñu dikkaat ak yéen sunu jotaay bi di suba ñu ci ànd ak yéen ci téereb Seexul Xadiim radiyallahu anhu bi ñuy wax Masaalikul Jinaan ñu war a tàmbalee ci faslun li ab dog la bu lay leeral fiiha ci caay-caay yi caay-caay yi nga xam ne moom la la waxoon ci njëlbeenu ñaare bi bunt bi caay-caay yooyu la la am yum la ciy leeral ci faslu bii mu ne waxasama séddale na al soofiyu soofiyu ba te mooy imaam yaddaali ci téeram ba ñu wax xaatimatu tasoof tilka rasaila yooyu yëla caay-caay lil xismeen ñeel ñaari xaaj bi xayri may ni ci lu nar nee na imaam yaddaali séddale na caay-caay bu nekk ñaar saaxiratin buy aji feeñ baatinatin ak buy aji nëbbu nee na caay-caay ñaar la mooy caay-caay yoo xam ne dafa feeñ ne fang ñëpp gis ko ak caay-caay yoo xam ne si ne yu nëbbu la mu ne fa saaxira yu feeñi xëyuma xaraamun mooy lu xaraam fatlu bi na nga sàkku almubaadara jëm ci tuub ko mu ne fa waajibun aji war la ala mukallafin ci mukallaf xaqal kon xellu na alkafu fekk xan xaa walif caay-caay yooyu xaw fa rabba naasi ngir ragal borom nit ñi jàll màgg na mu ne caay-caay yi nga xam ne siin dafa feeñ mooy lu xaraam mu ne waxtu woo xamee na si yooyu nag def nga ci lenn la nga gaaw tuub delluwaat suñu borom subhanahu wa mu ne war na nag ci mu kàllaf moo xam ne siin mu xellu la mu fexe ba fegu fegu ba caay-caay yooyu nga xam ne moom la lay bëgg limal nga bañ caa jege benn ka xëybatan lu mel ni ki jëw ci caay-caayu feeñ la jëw jàngaloon nañ ko ca ginnaaw wala ca na nafis sëriñ bu wax ne sunu borom nuróole na ko ak lekk medd moom nit kon lu bon la kon jëw sa mbokkum jullit bokk na caay-caay jëw nag mooy tudd sa mbokkum jullit fu mu nekkut te nga tudde ko loo xam ne su ko déggoon du ko neex doonte sax la ngay wax ci moom dëgg la loolu moo tudd jëw mais su fekkee la ngay wax ci moom du dëgg tudd tudd jëw fen la tudd bokk na ci caay-caay yooyu ma rambaaj rambaaj nag moo gën a bon sax jëw te mooy nett li waxi jàmmoor ci kaneen te la nga ci jublu mooy ak yàq loolu itam ci caay-caay la wakasi bi ak wax loo xam ne du dëgg moom itam ci caay-caay la yu feeñi wa anasil yamini ak nur ci euh intérêt personnel wala nit ko bëgg jappal rek ci lu dëgg tax mu jare la dem ci yoon di giñ ngir jox ko dëgg loolu tan dafa bokk ci caay-caay fekke la ngay giñ du dëgg wa ta'asubi ak parlo mo xam bokku deret moo tax ngay ak mom wala da ngeen bokku ab serigne wala bokk diine wala bokk dëkkuwaay wala bokk liggéey waaye li bañ mooy ngay dimbale nit ki ci loo xam ne du dëgg ngir na ñoo bokk diine wala ñoo bokk sëriñ wala ñoo bokk fuñ dëkk wala ñoo bokk ndey wala ñoo bokk baay wa zóori ak seeda aw nar wal faasa ak ñaawteef wama ak la xam laa yaxin du jariñ min xawlin ci wax aw fexle wala jëf wama ak loo xam laa yaxin du jariñ ak tam di seeda aw nar wala wax loo xam ne du dëgg wala aw ñaawteef wala loo xam ne du jariñ ci ay wax du jariñ ci ay jëf yooyu yëpp dafa bokk ci caacaay yu feeñ wa zahi ak dox wa nasare ak xool lil xaram jumtul xaram wa kull wa kulli maag lépp loo xam ne xabohan ba na nañ fi kalaam ci ay wax naka noonu tam bokk na ci caay-caay yi mooy di dox di jëm ci lu xaraam wala ngay xool jëm ci lu xaraam wala sax di wax lu xaraam wakal mu baasaratihi wala jonjante bil fari ci am pay naka noonu tam jaxasoo soxna soo xam ne si léwu la ci ab tey moom dina bokk caay-caay feeñ aw si waaxu wala lu moom naaw tare na nut xam tudd ko bii ñu aynal ba tey wala sax tudd lu xaraam moom itam das koy tare walkat bi wala bind ko wa samaaxa wala déglu ko wa istixmaala sax wala jëfandikoo naka noonu tam ni la taree woon wax xaraam noonu lañ la nga di ko bind wala nga di ko déglu wala sax di ko jëfandikoo waaye wa dammi muslimi misli muslimi ak kem dereti ab julit mooy ñi nga xam ne bokkuñu diine waaye dañoo fasante ngeen kóllëre ba noppi ngay tuur seen deret moom dafa bokk caay-caay feeñ aw maalihi wala ngay jël seen alal moom dafa bokk caay-caay feeñ aw mislihi wala kem ab wala kem moromam sax maanaam kem yow julit bi sa bopp sa bokkum julit ngay tuur sa deretam wala ngay jël alalam moom dafa bokk caay-caay feeñ kasaaka naka noonu hijran moy ak tóngulu hoñal ko manam di mere sa mbokkum julit mere mo xamne dang ko tek ci sa bakkan mu upp ñett fan da bok ci caay feñ kon su fekke mi ci sa bakkan nga ko tek bu mu upp bu mu upp ñett fan ndax nit sax mënut ta ñak baña mer kon mer mi nga xamne ci may nañ la ko ta muy tege ci sa bakkan bu upp ñett fan su uppe ñett fan rek kon su boba yaangi def lo xamne ak caay su fekke nak mer ma dang ko tek ci lo xamne ci la tax nga mere waji moy dafa nekk ci loo xam ne neexul yàlla nga bëgg mu bàyyi kon feeg bàyyiwul loola rek lu mu yàgg-yàgg mer ma wuta moo tax ma ne li xayri xàq sarix ci dul xàq sarix faxta na nga mooy daal mer moo xam ne bi koy mere mere ko ngir lu sarixa bañ ca mer moom mu ëpp ñetti fan wakaxti xaarixi wala xeeb ko wakal ihanatihi wala doyadal ko yooyu yëpp dafa bokk caay di xeeb sa mbokkum julit wala nga di ko doyadal dafa bokk ci caay-caay wakal mudahalatin wala mborante mborante moy ngay and ak nit ci lu ko neex ta fekk loola naqar yalla loolu lañ tudd mudahana tay nak mudaara mudaara moy ngay and ak nit ci lo xam da ko neex ta fekk naqarul yalla waye mudahana lañ téré moy nit ki kat li ngay and ak da nga bëgg lu ko neex dong waye xam nga naqar na ciay wal khiyana ak wor wor itam da bok ciay ciay feñi bo xam nak nit daf la denk alal wala ay wax wala secret nga di ko feeñal loolu lépp tam nga bokk ci ay feeñ wakal mu ak pexente maanaam di fexelante fexe yu ñaaw kenn ko di fexel sa morom noo ko defee ak ndëgg sarax yooyu te dafa bokk ci ay feeñ wal mujaadala wala werante wa kulli faat ak lépp lu yàq fi maxaamal ci jëflante ak lépp loo xam dafa yàq ci ak jëflante gu nit ñi jëflante ci àddina loolu tam dafa bokk ci caay caay feeñ mbokk yi ñu taxalu foofu di ñaan yàlla dafa ñu dégg ak topp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu بسم ربك الذي خلق جانغ daf وار waar نو خام سونو sunu daaray Serigne Saliou Mbacke nekk ci Sicap Foire muy daara joj daaray xam la ak xamle ñu fay jàngalee alquranul karim ak sariatul islamiya di fa jàngale mbooleem téere xam-xami Serigne Touba yi ak yeneen i téere tàmbalee ko ci tasawudu sixaar wala muxaddamatul izya wala tasawudu zubaan wala asamawi dañu fay jàngale itam jawharu nafis wala risaala wala masalikul jinaan wala mawahibul qudus ibnu azir ba ci jësbatu zixaar mu layinu ak munawiru sudur wala laxdari yu ak yeneen i téere xam-xam lépp lu waay bëgg ci xam-xamu islaam doore ko ci alquranul karim ak téere xam-xam bu man di doon daaray Serigne Saliou Mbacke nekk ci Sicap Foire dañu ko fay jàngale di fa tàggat itam ay gone ci njàngum xasida ku ci bëgg leeral woo leen ci 77 722 37 97 waa daaray Serigne Saliou Mbacke Sicap Foire ñu leen di may seen jotaay bii di yóbbalu suba واسجد واقترب